alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah relation buum bi nga xam ne moo takkee Mauritanie ak Sénégal yu dëgër la saal bii rek doy na ci firiku toog di ko wax di ñëw da ngay xool saal bi rek nga fekk ko mu mel ni muy wax relation boobu lu ëpp bu nekk di waxee bi si Abdul ji eh, eh, Jurjaani wax ne wa tajiduhu antaqa maa yakunu id lam yantiq huwa haza saal bi bu waxul sax liñ bugg wax saal bi ni koy waxee kenn mënu koo wax alxaaji Abdullahi kon gannaaw bu ñu waxee ci arab ñi nga xam ne da ngay gis ne moo takkee Sénégal lépp ak Mauritanie bu ñu waxloo ci Cheikh Ibrahim ñu jaar ci bàyyam boobu alxaaji Abdullahi nga xam ne ku baax la ñu baax ñëpp nangul ko mbaax am na jàpp na ci tariqa tijaan comme ni ñu ko xamee jël ci ay sénat yoo xam ne mu ngi jokk ci boroom xam-xam ay sénat yoo xam ne yépp ci Mauritanie la jokkoo ba ba ko yàlla di baaxee mu dem ci biti yokku ay saani dem am na rek ci borom xam-xam Mauritanie ku ñuy wax Mohamed Mahmoud Mohamed Saghir ci siiti bind na ci moom téere tuddee ko mutribi saamiin fi manaqib alxaaj Abdullahi Cheikh Ibrahim dafa mas a jox téere boobu taalibeem bu ñuy wax Mohamed Abdullahi Sayid taala allahu baqaahu mu dem jàng ko ba pare ñëw bind ci xasida bu rafet Cheikh Ibrahim bi mu xoolee xasida bi kontaan ci xasida bi ne ko maa ahbabtuhu li annahu walidi mu gis ne kontaan na mu ne ko waaye kontaanuma ci moom ngir ne sama baay la kon doomi sëriñ yi nekk fi yépp war nañoo jàngee ci loolu nit ku nekk bëgg na baayam nit ku nekk bëgg na maamam waaye nag bu la yàlla defee sa baay nekk nit ci yàlla wala sa maam nekk nit ci yàlla nu góor lu ba bëgg ko ngir lim nekk ci yàlla boobaa ngay door a jëriñu ci moom bu dul loolu rek ñu gis jàn boobu ñoo ciy jëriñu nekk ci eh, beneen jaani mu ne ko ma ahbabtuhu li annahu walidi ahbabtuhu li anni wajadtuhu min arrijal ku mel ni Cheikh Ibrahim nag shahaadaam shahaada la mu yaru ci kër baayam comme ni ma ko waxee léegi wala maal alawiin ñëpp ko xàmmee di ko di di waxtaanee ay turam ba Mouhamadul Kabir Alawi mi waroon tudd ñëw na yoon ci Sénégal ku miinoon Sénégal la daf daan dem ci borom xam-xam yi la dañuy wax ci moom ne. ka annahu xalaqahu llahu kama araada xusnu samtihi wa xusnu lafdihi wa xusnu xuluqihi wa xusnu xilqatihi sëriñ yëpp la doon jokkoo fii daf daan dem Cheikh Ahmadou Bamba ku amoon yaram la dañ ne bu tëjuwaan sax bu ñëwee dañ koy fëgg ne ko semin semin semin al aliyu semin ku am yaram ki ñëw na mu ubbi daf daan dem Sidi Haaj Malick nettal ni nga am na yoon bu ñëw dem ci Sidi Haaj Malick bi mu demee ci moom bay tàggoo di dem taalibe yi njëkkalante jël bagage am yi mu jël si xaaj Maalik nangu bagage bi en ko Serigne Abdou mu xool ko nekk ko xanaa da ngaa bëgg sa doom ji gudd fan moo tax en ko sama bagage loolu yëpp dama koy nettali pour nettali alaaka mu jugee foofu yoon woowu ñëw Kaolack bi mu ñëwee Kaolack fekk na alxaaj Abdoulaye génn àddina mu gis doomam yi waxtaan ak ñoom ba dellu nag Mauritanie di nettali famille mais alxaaj Abdoulaye di nettali borom xam-xam yi Sénégal xaaj Abdoulaye nii la mel naa la mel doomam yi borom xam-xam lañ doomam yu mag yi ku am xam-xam la ku jeex si Ahmed Tidiane la waaye am na doomam ju ndaw ji ñuy wax Ibrahim maa jaadat lam yajidi zamanu li mislihi ayatun min ayatillahi muy def tawaajud di def tawaajud ayatun min ayatillahi lam yajidi zamanu li mislihi kooku loolu la doon wax ci moom Cheikh Mouhamed Salim Wula Luma Cheikh Saadili la boroom xam-xam la buñ xam ci Mauritanie Xasan Abdul Xadim mi nga xam ne moo amee maxdara bi ci taysir taalibeem la ci xam-xam Xasan mu gën a nekk taalibe Baay waaye Xasan moo nekk ni ne dégg na Mouhamed Saloum bés mu toog di wax ak nit te kenn gisul nit ñu ne ko koy wax ak mu ne shabun kóori maftuuxa alayhi yaalu man ala Cheikh Ibrahim Niass ñooñu foofu lañ bàyyee seen xel ci moom ba moo tax doomam caax mu jëne nekk taalibe baay te bi ñuy wax pour ñëw wax ci dafay xat waaye amoon na ay leetar yoo xam ne moom bind na te ne ko Cheikh Ibrahim mënoon nañ koo am teewal ko fii ak ci moom la ne tariqa yi xaajis ndax bu fekkee tariqa pour àgg la bu ngeen àggee rek benn place tarixa yi mi ngi mel ni oto yi ñu jëfandikoo pour ñëw ci place bi rek ñii taxi lañ jël ñii jël ñii ñii jël nii waaye ñu accès ci bi rek benn place lañ nekk noonu lañ bëgganteewoon noonu lañ bëgganteewoon di jëmmalante am na wax boo xam ne du ne lii sax mooy munaasaba waaye damay wax ne xaw na léegi ngay gis kër gu nekk ku nekk rek wax ne diw sama taalibe sëriñ la keneen ki ci wax ne diwit sama taalibe sëriñ la jaruñoo utal ay taalibe jaruñoo utal ay sëriñ yu diwut seen sëriñ ndax ñun ñëpp ku ci nekk wax na bi insaaf bind na seen sëriñ yi leen jàngal koo ci dem ci ci silsilaam rek da nga fekk mu wax képp kum jëlee ku ci jëlee ci koo xam ne mujj na doon sa taalibe sax da nga ko wax ndax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu cheikhaani taalibeem la cheikhaani li ko indi ci moom Mouhamadou Baye Mouhamadou Xaafis mi mooy ñëw bi mu tarbiya ba pare bind Seexaani benn leetar boo xam ne indi ci benn bayti arabi aaytu maa yanfau liaahu yaa an ji hada shajaru wa maau bayt bi liy taarixam Seexaani bi mu jàngee leetar bi mënatu sa nelaw lan mooy taarixi bayt boobu arab yi dañoo wax ne dafa am benn arab boo xam ne dafa amee ay gàttam di sàmm di sàmm ba ci kanam amatul caawa amatul gàncax gisatul ndox ah mu yaakaar ne gàttam yi dañ dem wanteer gàtt yi jaay leen ah ci kanam rek gis ndox gis kële di yuuxu nag naan hee yéen sama gàtt yi ndox maa ngi nii gàncax gaa ngi nii fekk na moom jaay na gàtt yi ba pare waaye Muhammad ibn Nahwi radiallahu anhu ba mu ñëwee ci bàyyi ba mos ci moom li mu mos leetar bi mu yónnee Cheikhaan yi daf cee def bayti boobu ba Cheikhaan yi jàngee bayti bi mën a tane la te fekk na Cheikhaan yi daan na ci bàyyi di ko laaj addiya mu koy jox ndax doomi Cheikh Mouhamed El Hafid na ndax doomi Mouhamed Tulba la doomi Cheikh Ahmed la doomi Cheikh Mouhamed El Hafid mu dem ci baayam Muhammadu Tulba ne ko damaa bëgg nga tarbiya ma fekkee mën nga ko fekkee nag mënoo ko nga jox ma ndigal ma dem ci Cheikh Ibrahim Niass baayam ne ko loolu rafetut am ko Mouhamed Saïd mu ngi fi nga koy romb di uti sëriñ te boobu Mouhamed Saïd mooy xalifa xaafiziya te man huwa Mouhamed Saïd nga xam ne bokk na ci ñi ijaazaal xaay Abdoulaye ijaazaal na tim Cheikh Ibrahim ci boppam ba Cheikhaani demee ci Mouhamed Saïd daf ne ko izhab wala tansa ammaka demal te bul fàtte sa sa baay ji cheikhaani ñëw jàpp ci baay di shérif alawi bu ñuy liggéeyal mu ñëw ci baay dem koosi di liggéey koosi ba ñu dee ak Mauritania di namm koosi di toog di wax ne ajaban duuna koosi kayfa juluusi wa fuaadi wa man uhibbu bi koosi wa fi wa bihi fi madina qad kaana unsi wa irtiyaaxi wa raaxati wa aniisi walakin nafsu yaa madina fidaaun wa fidaaun li koosi min kulli buusi loolu dara mënta gis sa rabita bu mel noonu cheikhaane doomi cheikh Mouhamadul Xaafis Cherif Alawi aalim di liggéeyal kenn ci bilaadi Sudan may gi rëy na waaye moom it mayam rëy na laa yaarifu lfadle li ahli lfadle illa illa zawu bam demee Mauritanie mi ngi namm koosi daan nan laay toogee te nekkuma koosi te sama xol ak ki ma bëgg koosi kooku nga xam ne ci moom laay wàtt ci moom laay bànneexoo ma nekk Koosi wala ma nekk Medina kooku nag jong ma yu rafet yi am yëpp mën naa leen a jaay jëndee kooku wa bi hindi ufdikuma wa rabaabi wa bi mayyi wa zeynabi wala nisi loolu mooy nga yow ngi wax nag bàyyi na la nga tukki bu la neexee nga lim ñoo ci mën a lim rek fa sëriñam àggoon ca yonent bi Cheikh Ibrahim bay wax ci yonent ترى المصطفى بطنا وظهرا وتظهرا بسر من اسرار الاله المكتم ترى مع امان النوم بالشوق منشدا الاعن صباحا ايها الربع فاسلمي ترى منظرا هام الفؤاد بحبه فيسليك عن ليلى وميلى وتلبني وهند وبعد او سليمى وزينب وفاطم او اسماء وسلمى ومريم فقل لملوك الارض نامت عيونهم فهذا تملك لا يباع بدرهم waxtaanee nii saal bii rek boo ci doon nga xam ne gorowante nañ ak Cheikh Ibrahim macha allah dañ leen di lim lu bëri nañ loolu yëpp dafa tegtale bëggante ak doyloo xante waaye dem na sax ba taasir ci luxa yi ndax cheikhaani dem na Tayba ànd ak Muhammadu mii di seeti baay mu ngi fekk Tayba mu ngi ràpp lool muy jooy ku mel ni arab yi buy jooy talal waaye du may indi xasida bi damay wax rek li ma tax mu ne mawlid al barzax alladi jalla ma abdayta min xam-xamin wa min teggiini min xam-xamin wa min teggiini kon tara annahu adxala alluga al arabiya xata ida adxala alkalimat alluga al ulafiya xata ida adxala alkalimat al ulafiya tajiduha munsajiman munsajimatan maa alkalimat al arabiya min xam-xamin wa min teggiini gis naa ko indi ci benn téere ne baat yi seet naa ko ci mucjam ba sonn xaw ma bu ñëwoon Sénégal rek ñu wax ko mu ne ba tey muy wax ci Tayba inna min turbihi bada kulli turbin wa tabadda min yoonihi kulli yooni wa tabadda min yoonihi kulli yooni nga xam ne luxa yi sax dem nañ bañ koy jëfandikoo feneen mu wax ne wa dahru zu kadari in tastabir kadara amma qalilin tajid ikdaarahu du dara te loolu nag ñoom amee Mauritanie la amee Sénégal Serigne Moussa Ka shaa'ir Cheikh Ahmadou Bamba dafa woy Cheikh Ibrahima benn xasida di ko boolee olof ak arab waaye moo topp xasida bi ba gis muy dugal sax baati xasaaniya xasida mi mu ko commencé yaa ahla tijaani daw leen toppi barxaama mbaa léegi ñu ngeen mel ni bil siisan wa balxaama xasida bu gudd la waaye li tax ma bëgg a wax ba muy lim taalifi bàyyi dafa wax ne xam naa ci kaasifu albaasin wa jaamiu asraarin ku leen yër ne maalum xatta barxaama loolu am olof a ko wax xam nga maalum xatta moom ku jàng ci ci jaamiat arab yi itam doo ko fekk doo kalima xasaaniya te Serigne Moussa Ka mu ngi fii di ko wax loolu li mu mooy insijaam am na diggante Mauritanie ak Sénégal insijaam ruuxi insijaam xatta albadani imtizaaj am na ba nga xam ne nii mënu loo xam ne Mauritanie an Sénégal loolu alaaqa la boo xam lu gudd la benn jotaay du ko jël suara yi wéy nañ ci suara yi yi daan jublu suñ boor yi am na ci ñoo xam ne ay suara lay dana nekk ci xay bu ko dell ko defee ku am ngëneel kuñ tuddal sa ngëneel nga jox moo tax sëriñ yi ñu nekk seen taalibe ñu du seen taalibe wéy nañ leen ci loolu waaye mbaax bi nga xam ne moo doxoon ci seen diggante suara yi taabir nañ ko taabir boo xam ne kenn mënu cee jot muxtaar alxaamid wax na ci benn qasida di tagg cheikh ibrahim ne yamurru yuqiimu aw yamurru nuuru lhuda xaydu aqaama cheikhu aw xaydu mar dafa wax ne cheikhu ibrahimu fi mu'tamar wa fi mataabi alxajji walmu'tamar wa fi maqaamihi wa fi marwatin wa fi safa wa fi istilaami alxajar walmashcari alxaraami في ليله وفي منى أيام رمي الجمر وفي وذي الحليفة وأرجائها وفي مدينة وأرجائها وذي الحليفة وبدر القمر والشيخ إبراهيم أيضا قمر في مصر والشام ومدن أخر يقيم أن يمر نور الهدى حيث أقام الشيخ أو حيث مر وجوده شذر نذر في الورى يكاد فيهم عائلا لا يذر وعلمه أيضا شذر فيهم مذر كما الجود شذر أو مذر te nag noonu la leen buggee noonu la leen ixtiraamee noonu la leen teralee ndax xam bi gis naa leetar boo xam ne moom Cheikh Ibrahim moo ko bind Seydi Ali ebal ko ci Gàmbi ci biir leetar bi mu ngi koy wax ne ko liñ la jox foofu maa kaana fiihi safaana xamt la arsilhu ilayya fa inna mashaayix al alawiyina yatlubunahu minni wa ana xaadimun lahu bépp doomu yonent bi ñëw ci moom mu def na la yaay sëriñ bi yow yaay dem ba xam xususiya bi nekk ci moom nangul ko mu door laa jàppee taalibe pour man laa jëriñ waaye da gis ci topp ko ne taalibeem la kii ñëw ne moom sëriñ la sëriñ la buy jël ci moom àddina wax naa sànq ma ne sëriñ si buñ leen utal sëriñ yi dowut seen sëriñ ndax ñun tudd nañ seen sëriñ yi damay joxe misaal Cheikh Ibrahim Ahmadou Tulba bàyyi Cheikhaane bokk na ci ñi ko jox lijaasa waaye bi ñu demee moom ba gis xusuusiyati cheikh daf koo nangul ba cheikh ibrahim jox ko lijaasa boo xam ne daf ne ko gis naa cheikh ahmed tijaani mu jox ma ndigal ci ma jox la nee jiital ku la neex joxal ndigal ku la neex kon li ñu war a jàngee ci ñoom mooy insaaf li ñu war a jàngee ci ñoom mooy mahabba li ñu jàngee ci ñi daan jugee fii di dem ba Mauritania di uti xam-xam te ba léegi mu ngi am ba léegi jilsa bii ñu toog rek man nga fay gis ñoo xam ne Mauritanie lañ jàngi alquran Mauritanie lañ jàngi alquran wala ci loxo Mauritanie ni ñii di wax ci Mauritanie lañ jàngi alquran Cheikh mu Yacine mu nga ne lu Cheikh Ibrahim ci loxo Mauritanie ci la Mauritanie la jàngi alquran ba mokkal alquran ak ñeneen ak ñeneen ba léegi xale yaa ngi dem Mauritanie di jël alquran di jël xam-xam waaye loolu xëy na ndax saxaaba yi dañ daan tukki dëkk ba dëkk ngeen benn xadis Jaabir dafa dégg xadis boo xam ne masu koo dégg mu mu ne ma ma jënd fas war tukki tukki weer pour jël rek xadis raddul mazalim kon nag xëy na bi nga xamee ne diggante bi yéen ci bu mel nii itam ñu def ko dëgg-dëgg lu am solo la daf ñuy delloo ci taarix daf ñuy wan ba tey alaqa Mauritanie ak Sénégal ne alaqa la boo xam ne nii deexut du taarix bu ñuy nekk li mu nekk ci matxaf waaye alaqa la boo xam ne ñu ngi koy dund tey jii ndax Cheikh Mouhamadul Haafis mii di def jotaay bii tey boo demee Medina këram ak sama kër ñoo ñoo ñoo ñoo jàkkaarloo bu ma génnee rek buntu këram laay def kon nag noonu lañ ma ne ni Mauritanie ak Sénégal benn la ñu ngi gàttal wax ji ixtiraaman lil jumhur ndax xam nañ ne ñu ngi doon xaddat nit ñi kon ñu ngi ñaan yàlla an yanzura ila hada aljamci nazara rahmatin wa inayatin wa kalaatin wa yaqbala alayna